am kàddu ya yu fi jib yoo xam ne ndigal la lu bàyyi ko Cheikh Modou Mountakha ñëw si moom léegi si bëccëg sëriñ bi wool ko boppam am lu mu ko sant mu ne woon balaa wax nag lu jëm lu jëm si liggéey bii ak cant yi ak ngërëm yi ak li si aju lépp ñu jottali taalibe yi kàddu yi nga xam ne ndigal la lu bàyyi ko Cheikh Modou Mountakha ñëw si moom ndax moom day wax ni jëfe ndigal yi sëñ Muntaxa rek moo ko fi bàyyi mi ngi sant njabootam gii bu ñu waxee njabootam gi nag mooy njabootu Cheikh Fall gépp ndax tey jii moom la yàlla teg si boppam njaboot gi te ba nu ko jiitalee kenn fakkatalu ko kenn jiituwu ko kenn gàllankooru ko waaye ñëpp dañoo maase rek ànd ak moom téyel ko yan bi ba dara egsi wut si moom waxtu wu ne mu koy soññee mu koy wax di ko fàttali muy xolam bu sedd si ñii nga xam ne ñoom la njaboote bu njabootu maam Cheikh Fall waaye nag njaboot gi noonu rekk lañ mën a mel ndax ki nga xam ne moo moom yëf yi moo sos lépp loolu yi lañu fàggul ndax fekkoon na fi cër yëpp waaye ba mu ñëwee dafa tànn ab cëram tànn gi nag waxin la rek ndax Cheikh Fall si boppam moo wax ni moom yàllaa ko tegtal sëñ Touba kon moom ñëw si sëñ Touba si coobareem ak dikkam ci sëñ Tuubaa si coobare suñu borom la ba mu ñëwee moo ko jàngal wala mu won ko wala mu boole ka ko won ni ñu war a toppe sëñ Tuubaa ak ni ñu ko war a liggéeyale muy lii nga xam ne ñun moom la ñu xam muy ak taalibe ni nu ko déggee xame ko noonu te di ko jëfe noonu saa su ne muy warmaal sa kilifa muy di déglu sa kilifa muy jël sa kilifa doxale ko sa digg yi lépp yaakaar ko di ko liggéeyal te yàlla rekk tax doxin woowu yi loolu la Cheikh Fall ànde woon ak sëñ Touba ba am li mu am waaye doxin woowu li muy yéeme yéeme tey jii àddina bépp di ko roy Cheikh Fall di jàngalu ko boppam yàlla mi mi ko bind sëñ Moussa Ka wax na ko nee na ba muy nettali xibaar ak njëbbalam dana yàlla mi ko moom moo ko ne Bàmba la moom demal wëri ko kon moom ñëwam ci sëñ Touba du coobareem yàlla moom bëgg a doxal ay mbiram te mooy seet na ko soob mu doxale ko noonu na mu tànn ña ko jiitu woon kenn ku ne mu jox la ab cër noonu la tànn sëñ Touba noonu la tànn Cheikh Fall boole koog sëñ Touba sëñ Touba féeteeg yàlla rek ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye Cheikh Fall nag féeteeg sëñ Touba ba fu nu tuddee sëñ Touba Cheikh Fall rek la ñuy xalaat teg ko si loolaa waral ndigal du nu ko jaawalee dara ci àdduna ndax jëfe ndigal moom moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi bépp taalibe lale boole si yoon wi bañ lay tuddee ak taalibe. kaddu la yoo jibal si kanamu kala doy roye ko kaddu yo Seex Faal waxoon Sëñ Tuubaa jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi ku doon ab murit looloo kaddu yooyu tax nga doon ab murit waaye kaddu yi aw làmmiñ a koy jib rek moo koy wax lay tax mu wér mooy waxtu woo ko tuddee boo jógee nga màndargaal ko si ay jëf mooy la nga diggee ak sab sëriñ ne ko jébbal naa la sama bopp nga wone si sa jëmm ak say jëf wane ni yow moomatoo dara sañatoo dara si sa bopp ni ko Serigne Fall mii di waxee ab bi daa war a mel ni néew bu nuy sang ci kanamu way sang des koy jëmale fi barab rek waaye moom mënatu la jëmale boppam fenn kenn ku nekk yaa diggee woon ak ka nga yaakaar ne ko loo ma digal dinaa ko def loo ma tere dinaa ko bàyyi kon waxtu woo jëfee lu bokk nag loolee da xam ne si melokaanu doomu aadama ndax yàlla moo nu bind sëñ Saliou doon bu nu mënaloon suñu bopp dara ana lu nu wut si si sëriñ bi ñàkk a mënal suñu bopp moom indi si sëriñ bi ñu fiy sàkku si loo xam ne mënuñu ko am te it mënuñu koo amal mënuñu koo sàkkul suñu bopp te mënuñu koo ñàkkit nag loolee la ñu yaakaar si sëriñ bi te moo nu fi indi loolu nag wax wu ne sëriñ bi di sàkku ñu di ko bàyyi xel di ko fàttaliku lu jamono ji xat-xat lu mu jaxasoo jaxasoo kenn ku ne di fàttaliku ne li la tënk benn baat képp la muy baatu ndigal baatum ndigal nu ñëpp moo nu tënk te loola nun noo ko tànn nag ngir yaakaar bi ñuy am ci sëriñ bi si tey jii nga xam ne ñi ngi ànd ak suñu teew bakkan ak ëllëg ba nu mënul suñu bopp dara sunu yaakaar dara ci si sëriñ Tuubaa moom dong lañu yaakaar tey ak ëllëg sëñ bi nag li muy wax mooy nit boo ko yaakaaree da ngay fexe ba góorgóorlu la sa la muy digle nga di sa góorgóorlu la nga man la nga xam ne la ay tere la nga di sa góorgóorlu si la nga man si bàyyi loolaa waral sëriñ bi bu déggee kàddu sëñ Touba day daal di dellu si loole rek a teg ndax loolu rek a fi ne mooy kàddu sëñ Touba moom jëfe rek noonu sëñ Cheikh Fall jëfe woon ak moom ne ko loo digle mën naa am loolu la sëriñ bi jàpp lu sëñ Touba digle rek mën naa am sëriñ bi wax ne ñu delloo si waat suñuy xel bu baax delloo suñu xel ci àdduna fàttaliku xoolaat ni àdduna di doxe xam ne jamono yu njëkk ya ba fi Cheikh Modou Moussa Fall nekkee ak rakkam ak mag ñooñee fi newoon ak jamono jii am na ak wuute ndax jamono ji njaboot ji gën naa yaatu jamono ji ad jamono ji gën naa yaatu yu bari ñëw na gane sinu waaye terewul lanu sëriñ bi jàngaloon buñ sa ngoyee du ñu réer mukk sedd na loolu la sëriñ bi bëgg nu di ko bàyyi xel te di si dellu saa su ne li nga xam ne moo waral kàddu yi Cheikh Mountakha yónni nag yónnee si sëriñ bi mooy lii nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ko wala dégg nañ ko mooy li xew ci diggante kër gii di kër Cheikh Ibrahima Fall ak kër gii di kër maam Thierno Birahim moom ndaamal moom Daaru Muxti sëriñ bi wax ne sëñ Muntaxa de wax na ko ne ko diggante yaari kër yi dara xaju fi diggante yaari kër yi muy kër Cheikh Rafal ak kër maam na Birahim sëñ Muntaxa nee na ko diggante yaari kër yi dara xaju fi ndax du yaari kër genn rekk la ñoom ñaar day sunu borom moo leen boole woon ci seen sang ba di Xaadimu Rasuul seen Tuubaa ñu àndoon liggéey boobu di ko liggéeyal seen Tuubaa ba kenn ku ne laq ngërëmul seen Tuubaa waaye kenn ku ne xam cër ba nga xamante ne bii moom sa moom la sunu moom la la sunu borom ci liggéey boobu nga xam ne yàlla doon liggéeyal seen Tuubaa ñu àndoon ànd boo xam ne bii ànd bu rafet la te loolee ñu sampoon ba tax ñu mën a tënku sa ànd boobee tey jii dara jugu fi lépp a lépp a ngi fi lépp day la gën a jàppandi kon nag sëriñ bi ne ko jëfi saytaane bu nu ko bu nu ko bu nu ko seetaan mukk muy dugg foo xamante ni fii xaju fa séntu nañ ko fu ne ba mu des diggante kër maam Thierno Birahim ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall ndax du yaari kër genn ab cër la mas a jox Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima di ko xoole sëñ Touba di ko xoole mbokkam moomee nga xam ne la muy doon doon magam moom maam Thierno dafa jaayante woon ak moom jaayanteeg moom ak dundam jaayanteeg moom ak demam jox ko léppam laxasaay du ko liggéeyal ba am ngërëm noonu yi doxin woowu moo doon doxinu maam Cheikh Rafaal rek kon ñooñu fanu dajee ñoom xamante nañ bu baax sëriñ bi sax a ngi nettali yoon woo xam ne Cheikh Rafaal dafa jógoon bëgg siyaare ji maam Thierno ker ba ndaw yi demee yëgal ko maam Thierno dane nanu bàdd sàkket yépp tëral ko ndax jëmm jooji li kenn du ko sàkkal bunt bu muy aw kooku xam ne kuy jël kuy Cheikh Ibrahima Fall xam ne ab cëram kon nag bu nu njëkkee ba jamono ñu dem ba ñenn si njaboot bi am loo ne ni si ak ak ak juuyoo la si ay xalaat wala si ay wax wala si ay jëf sëriñ bi day jàpp ni loolu jëfi saytaane rek la saytaane nag du du noppalu mukk waxtu wu ne mi ngi gànnaay yi waxtu wu ne mi ngi fedd li yéeneem si di tasaare loo xam ne loolu sunu borom a ko defar waaye néew na si doole lool rawatina diggante bu mel ne kër maam Thierno Birahim ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi di sàkku si njaboot yépp nag loolu yi fi xew ñu daal koy féetale suñu gannaaw nag daal koy féetale suñu gannaaw te def ko mu weef doy def ko ak sant yàlla suñu borom def ko ak ak ak delloo njukkal sëñ ak delloo njukkal ñaar ñooñu nga xam ne ñoom lañ tudd loolu yi la ko sëriñ Mountakha digal ne ko na nga woo njaboot yépp nu nga nga ne leen nanu dellu si waat te xam ne jëfi seytaane rekk la waaye yaari kër yi dara xaju si nee na gépp kàddu buñ si waxoon muy la jóge foofee ak lu jóge si njaboot bi nanu xam ne jëfi seytaane rekk la sëriñ bi yeddul kenn sëriñ bi xasul kenn sëriñ bi euh, waxul kenn loo xam ne lu lu lu koy lu koy naqare lay doon waaye daa bëgg a si nit ñi mhm. ñu xam ni yu mel noonu waxtu woo ko gisee mhm. si diggante yu xat yii mhm. nañu xam ne jëfi seytaane rekk la lu mu gànnaayu gànnaayu nag la ko yàq jaral moom seytaane ñun bëgg lu baax ak defar nanu ko jaral te jaral nanu ko te danañ ko jàggi ba sa kaw ñu dóor ko fi suuf nappaaje ko ba dootu am kàttanu jóg loolu na sëriñ bi bëgg nu wan ginnaaw loolu ba mu ba mu jeex takk bu nu ko waxtaaneeti bu nu ko xoolatee bu nu ko déglootee te képp ku bokk si njabootu Cheikh Ibrahima Fall sëriñ baa nga lay digal kaddu lu jëm sa loola bu si yëkkatee ni mukk say kaddu mu jëm si mi ngi mi ngi leen di sant bu baax nag xam na ni taxawaaye kaddu lu si mën a am rek bëgg seera baal ak yaakaar ko rek amuñu lu moom moom rek lañu bëgg waaye nag loolu wuutewul ak warmaal nga xam ne war nañ koo warmaalante si sun biir Cheikh Fall moom yàlla nopp na si ay mbiram la sëñ la sëñ Abdoulaye waxoon si sëñ Touba rek ne lam ne woon suñ borom nopp na si moom kon nag sëriñ bi nee na ñun ñëpp na ñu delluwaat si kàddu yi Cheikh Modou Mountakha yi sëñ bi nee na nañu jéggalante ñun ñëpp nañu tuubalante ñun ñëpp nañu balante ak ñun ñëpp te na nanu xam nag li nu fi indi te bàyyi nu fi muy ak taalibe te nanu xam nag ki nu boole nu ban koo fàtte muy Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul addinam gépp da koo jaay addinam gépp da koo def li tubaab di wax sacrifié ngir nun taalibe yi ñu am tawfiix kon kookee liggéeyam boobee suñu demee ba toll si xam bii waruñoo seetaan dara di ko yàq seddina te dara mënu koo yàq kon nañ delloo si waat xel yi ndigal li daal mooy sëriñ bi nee na loolu fi jiboon jot na ndigal Cheikh Mountakha mu ne ko na li jottali taalibe yi njabootu Cheikh Ibal gépp ne bu ko kenn waxtaanee bi bu ko kenn tuddal bi bu si kenn waxat yi ñëpp nañ ko delloo si xam ne mbirum seytaane la te seytaane bi moom daan nañ ko ba nun bi sëriñ baa ngi sant ñëpp nee na mhm. fas nañ ko yéene jëfe fas nañ ko yéene jëfe waaw ñun ñëpp ndigal dong la ñuy déglu jërëjëf jëfe ndigal moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi sëñ bi di koy wax saa su ne te li nu nawee nun mooy nangu ndigal rek ak nangu koo jëfe kon nag li ko jëfe ku si gisate lu ñaaw wala loolu lu ko romb jàll te dana koo xool dana rek ñor liggéey sëñ Fallou sëñ laa bëgg mu mu jottali kàddu yi sëñ Cheikh Ndiaye Mbeg <laughs> waaw ah. waaw li li li moom li moom sëñ bi ne woon na jiitu gannaaw gannaaw ndigal la lu ko dab tey jii si bëccëg ñu jot li ko bokk taalibe yi Serigne Sall bi jot li kàddu yi nga xam ne moom bàyyi ko sëñ Cheikh Ndiaye Ngaye su ko defee ñaanal mbooloo ñu jël boole yi mën a mën a bisimilah sëriñ bi moom bi sëriñ am di waxee rek am na ci biir kàddu yi sëñ am di yooyee koo xam ne kii ni ci kër Cheikh Ibrahima Fall nga tënku bu ñu déggati saw làmmeñ laal ko loolu yi sëriñ bi wax ni liggéeyub seytaane la liggéeyub seytaane rek mooy def loolu ndax diggante boobu kër maam Thierno ak kër Cheikh Ibrahima genn kër la lu ñaari kër te dara mosu fee xew nag ca booba ba fi mu ne dara mosu fee xew lu lu rafet ku ci déggati itam di gone lu mel noonu mu metti la ba ngay fuur àndal ak dal dem ba ci sëriñ bi sëñ am di ko man de nangam laa dégg ak nangam ak nangam ba xam lu mu la cee xalaatal. Mhm. ndax da cee am loo xam ne lii ni mhm. jarul sax di ko tontu nag. ndax du lu am solo. kawax dafa xamut rek. waaye ña xam mhm. du ñu wax ci boobu diggante dara. kon sëriñ Cheikh nee na koo tënku ci moom ngir jëmmi Cheikh Rafal ji moomee mbir bu ci sa kàddu jëmati asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.